so dañ la gis fan ci production bu bees euh, Doudou dafa bàyyi Marodi dafa bàyyi Adja léegi mu ngi ci yeneen production dafa jël yoonu boppam lu xew Zeyna yàlla ndëm bàyyi Marodi réedicu réedicu bàyyi ma Marodi tey bàyyi ma Marodi suba parce que production bi du production Marodi waaw ah, ay acteur lañ. li mhm. nga acteur du am chaîne acteur kenn du ko takk mhm. et loolu ngay wax noonu li ñu ci dugal du xaalis li ma la mhm. doon wax sànq rek c'est un challenge parce que c'est une télé-réalité mhm. c'est un truc affaire bu bees c'est un truc nouveau boo xam ne daanuñu ko fi gis pour man challenger boo gisee lu bees da koy bëgg et ma dugg ci juste pour xool pour def ko pour jéem fa apporter dara. je mhm. pense que def nañ fa dara. Mhm. li Sénégalais di xaar ay affaires yu obscène non nekkul loolu. lan la war a mën a xaar ci ci ci. ay ay secret yu garaaw. Mhm. yu lay bett. Sénégalais. day seetaan benn affaire secret story. wala les Marseillais. mu nangul ko tubaab yi. ñu ne ñii ñu ëppal. roy nañ non. kon mën nañ jàpp ne même projet ak yooyu la en fait dafa am ressemblance bu bari c'est le même concept même concept bi la mhm. ay jeunes yu bokk benn gaale di dund mhm. mais jeune France ak jeune sénégalais yu bokku mhm. ñun sañ nañ dëkk si kër ñun mais ku nekk xam nga li nga war a def ko mais tubaab tamit ak nu muy dundee ñun ak nu ñuy dundee dul da nga xam Mamy Dollar <laughs> yow da nga yow <laughs> yokk yokk ko ba 5 heures du matin. damay doraat sama système la. lan ngeen sekk. non xam nga xam nga xam nga lii moo may boole. yaa tey lan ngeen sekk. tous. Mhm. sama sister la. Mhm. comme yow sister Zeynab di nga nekk sama sister. Mhm. Mamy Dollar par contre sama rakk la. donc am naa droit am sama xarit ñu tase anniversaire. 4 heures du matin 7 heures du matin mais. suñu xaritoo la. et je pense que Sénégal loolu moo ci au de soutenir leurs artistes. ils essaient de chercher une faille une fois que siw nga. nit ci xoolatuñu li ngay def lu baax mais sa faille la ñuy seet pourquoi. mais dañ laa jiiñ fanaan këram fanaan ak moom loolu lañ la jiiñ du non nekkuñu këram. fanaanuma këram. bu ma nekkoon këram. fanaan këram. kooku di ma ko jiiñ lu tax mu ma koy jiiñ. chaque personne a sa vie. faut que tey jii li may wax rek tubaab lu tax suñu borom dénk ko àdduna mooy dafa maanu. j'ai rien à me reprocher nag. rien absolument rien sauf que de voir des da nga nekk si boo xam ne tu le tu es tout le temps inquiet yaa ngi chaque jour sa téléphone xool ndax bindaluñ la dara wala dugaluñu sa dara. en fait on vit plus. lu tax parce que ñun si boppam ñun ñooy may force koo xam ne day éclater suñu vie. donc su ma la déggee ba tey yaa ngi approuvé que mami Victory mami mami Dollar sa xarit la am nga droit fanaan këram. mami Dollar sama xarit la. Mhm. anniversaire lañu nekkoon ñun ñëpp. anniversaire ci biir këram. non non du këram. nekkul woon këram. Mhm. loolu. non on a besoin que dañu xëy rek génn affaire bi éclaté ci ci réseaux sociaux yi tey ñi lay seetaan. say fan suñu bari ñu ngi posé wu la question quest qui s'est passé. ça me fait plaisir. parce que y a des sites yoo xam ne bu ñu defoon comme yow du leen mere quoi. Mhm. mais c'est des sites yoo xam ne dañ ko gis rek jël ko bind ko titre ko. Mhm. ça m'a pas inquiété quoi parce que je que j'ai rien fait. Mhm. mais pour man lan moo gën a professionnel. man nga woo s'il s'il faut qu'on en discute on en discute si je peux pas en discuter mhm. que nga respecter loolu loolu mooy Seneweb number one ah loolu loolu chapeau pour mhm. ça et comme je l'ai dit mhm. j'ai rien à me reprocher sur ça am naa droit am ay xarit comme ñëpp am na droit dem anniversaire u samay proche comme ñëpp ñu tasee si ma woowal ma kii ma woowal ko kooku ñu waxtaan kooku kooku ngeen di wax sama xarit la c'est mon ami chaque jour la ñuy mais c'est pas une raison pour ma valider moom li muy def nii no ñun bokk nañ si ñi ko def direct ak moom depuis kooru daaw ay man jaw ketchup ngóor mm-hmm, mm-hmm. il faisait pas ça mm-hmm. ba da doon saaka kese ça va mais di c'est c'est un truc boo xam ne mu ngi koy def peut-être Sénégal yi ñu ngi koy seetaan mais kuñ tudd ba pare li yàqu si yow bëri na torop et bul xam pendant combien de temps lay yàqu après moom est-ce que jéem na la joindre pour xam sa version des faits. kooku ñooy waxtaan chaque jour ah. maanaam moom buy wax ci man. Mhm. mun na ma bañ a sax laaj. Hmm. lu ko neex lay wax ci man. maanaam am nga relation bu bu profond daf ma daf ma mën a tooñ quoi. yow ak Adamo. man bu ma di tudd turam nag. d'accord maanaam moom daf ma sonal quoi. Hmm. man damay romb nii sax dégg ñu ne tudd na sa tur du ma ko du ma sax xalaat dama koy gëm parce que. Mhm. daf ma sonal. d'accord du coup noonu laa ma ah bàyyi di tudd sama tur bu ko defee mu tontu ma yooyu muy def rek. Mm-hmm, xam nga. Mm-hmm. mais sama xarit la. d'accord et par ni ko waali ba wax di ko ñaanee mu bàyyi saaga. Mm-hmm. man pour man ak sama xaritoo ak yow Adamo war naa la mën a ñaan nga bàyyi yi nga ñi lay dugal ci kaa yooyu noonu. ah naan la kaa bi kaa bi Adamo bu ñu demee keroog yàlla ma la xiyaan ku nekk am na ku la war a jugé. donc mhm. pour man nekk yow yaa war a juger li ci sur terre. Mhm. parce que ku nekk xamul vie wu kenn. Mhm. peut que tey jii huit mille sénégalais yuy yu lay suivre sa direct Instagram yi ñoom xamuñu lan mooy sa vie yow. mais yow xam nga seen vie et nit ku nekk am na looy nëbbal sa bopp. donc pour man lii war nga ko mën a bàyyi bu nekkee da bëgg joob ak gaa yi loo xam ne mun na la may succès wala dara nga def ko. parce que bul fàtte ne yow. ñi doon tagg Serigne Babacar Sy si nga bokkoon. Mhm. donc tey jii pour man boo ñëwee jël nii rek jàddukaay bi nii pour man du loo xam ne war na te pour man ku la yónnee kaane la dugal ko kooku bëggu la. Mhm. du lu baax weer nit munoo wax ba am ci tiyaaba kon man su nekkee conseil sama xarit nga nag xam naa guddi bu tëj nga dugg sa Instagram waxal mu lu la neex. Mhm. conseil la rek en tant que xarit. bu dee ngay def mun nga ko bàyyi. ma je te conseille nga bàyyi ko parce que uh-huh. vraiment amul loo xam ne mën na la ko yokkal lu dul wàññil la ko du ko def uh-huh. parce que mënoo fecc meru jàmbur sénégalais man nañ doon wax cybercriminalité uh-huh. man léegi si internet bi cyber haine laa fa gis mooy que nit ku la def lu la metti nga jaar si say réseau jaar si connaissance yi nga xam ne dañuy fësalaate nga yónnee ko li nga xam ci kooku et amul njëriñ amul njëriñ quoi donc Adamo bu dee ngir yàlla wa rasuul li nga def mën nga koo bàyyi li may wax du pour man mhm. tey jii peut-être nit ku nekk am na foo jaar mhm. Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi da ngay toog deux mille vingt et un ngay xaar li nga defoon deux mille onze ndax du génn mhm. kenn wóolatul kenn ñun ñi ñi nit yi ñu bëggoon sax di ñu woo appel vidéo du leen nangu décroché parce que léegi ñëpp ragal jël voilà parce léegi kenn bëggul jël kenn les gens dañ lay bëgg bëgg la gis ngay gis famille bu def groupe woo duudu appel vidéo nga décroché ñu yuuxu mais léegi ñemewoo dara pour pourquoi donc pour man jaamu bi fi amoon ñi ñuy wax politique bi jaamu bi fépp la commencé yàqu rapport yi fépp la commencé ñaawee te mi ngi moche gars yi mi ngi moche na nañ ko rafetal boobu nice quoi est-ce que scandale boobu amul dara lum la yàqal ci moment boobu nan la la def dara mhm. man pour man lu yàqu dafa war a yàqu sister sister Zey man je je manque de tout sauf de mental moi j'ai un mental d'acier. Uh-huh. li nga su bu ma fi defoon nit lu ne wenk yàlla bu ma dal nag. Uh-huh. donte daan naa ko def bu ma defoon lu ne weng ba ñëpp gis ko. Uh-huh. mu am lu mu yàq dama naan suñu borom dafa bëggoon yar te fii la ko ma jaar ci yar sama bopp. d'accord mais loo war a jot ci àdduna loo mënti def ci àdduna da ci jot. donc euh, donte nag ndimbal da cay fekk loxol borom. Mhm. nga moytu lu bëri. Mhm. mais man dama gëm ni lu yàqu rek dafa war a yàqu. Mhm. lu am dafa war a am. donc euh, les gens qui ont fait du des erreurs def leen comme man man j'ai des erreurs comme tout le monde mais nee man peut-être avant la avant jamono ji def naa ay erreurs mais li des sama àdduna njott naa ne du si juum. waaw. Mhm. maturité dafa neex. surtout. Mhm. maîtriser dafa neex. c'est important. Eh, lu bari dama ko commencé xam. Mhm. te xam naa ne loolu bu ma. yaa ngi màgg quoi. non dama commencé bien quoi. di di màgg quoi di doon màgg quoi. non léegi naa je fais plus ça. léegi ah, <laughs> comme da commencé màgg à quand mariage. Mm. ndax màgg day ànd ak takk soxna. day daal di toog casé wu seere bu xale yi la nopp fii takk ci kenn nag mu sëy si wax ji jeex déglu ma rek mhm. nga àdduna dafa doy wax loo fi ñëw daaw si tësey naa jaroon naa ah daaw jaroon nga xale yi bëgg ma ma ne fii di boobu maa ngi bëggante nag ndeysaan di di gisoon ni ma doon waxee takk tay fi tàccu ñàkk fay dalaa defoon mais aujourd'hui si j'ai un rêve waaw da ngay bàyyi ree waaw nu ma waxee sama problème nga nekk fii man maay weer bopp di wax lamb naa tamit da ngay def rek da nga le problème c'est que rêve instant bu dee rêve ngay festival de Cannes sëñ bi du Cannes du Portugal xamul mooy rêve jabar jabar mon plus grand rêve serait de me marier avec une une belle femme une bonne mais mais ñi nga am ni 40 gel yu bari yi nga am ni doo ci takk kenn rek jàpp jàpp yàlla. waay sama yaay ak sama papa am goro. bi ma fay mujj daaw. Hmm. xaw ma daal di géej bi ma mujj fii. laa gënoon ne ci dëgër fu mu toll nii maa ngi layam layam yi mel ni préfet de Dakar. kon kenn nekku fi. damay wër rek maa ngi hmm. nii xam nga. am nga ñooy avancé. waaw daal xam nga daal loo xew mooy moo pays ba mal daal. ouvrez bàyyi leen ma ma tukki peut-être ça erreur <laughs> ki war a doon sa soxna nan la war a mel en fait. nan de jigéen. Mm. xam na naan góor yombul waaye jigéen a gën a jafe. ngeen ne réew mi góor yombul di dàllali miski jigéen a ko gën a jafe lool sax ñi nga war a bëgg bëri mm, jigéen. Mm. da nga war a bëgg ñu bëri xam nga góor sax mu ne day liggéey du am temps du dem sa kër famille jigéen. yow del siiñ yow foo toll wag na ree da nga war a ree ba sax nga am i karam jigéen bu souriante. ak lan mais bëgg naa caractère xam nga souriant ak ñax caractère du benn waaw mën nga mën nga souriant te am caractère man jigéen balaa ma laa ma laa gën a bëgg ma ragal la yow ah, ah mu napp la daal nga ah, ma nga ne lan ma naan ah absolument ak lan <laughs> non da nga bëgg naa jigéen moom uh-huh. uh-huh. a togg mun a joxe ñam Uh-huh. accueillante bëgg nit. Uh-huh. li ma bëgg si jigéen daf bëri nag. am na yoo xam ne du fi waaye tamit. Uh, physiquement lan nga ci bëgg. physiquement ku taay fin wala ku jongoma. waaw ça dépend si fi mu lay fekk rek mais nii may wax ak yow nii moom nga bëgg. ndax da pataa. pataa ak pataa mënut a ànd. ndaw lalu. lan daa seer dañ koy daj rek. <laughs> lal dafa seer ay millions la jël. mu noonu mu nekkoon waxtaan bu am solo man ak Doudou saa yu fi ñëwee nii lay demee ah entre frère ak sœur la ñoo bokk même génération euh, pour tàggatoo lan la ñuy mën a xaar projet yi actuellement hormis ak House of Secret bi. donc euh, mm, di wax gars yi déjà merci hein. Mm-hmm. merci de de nous suivre pendant toutes ces années. Mm-hmm. surtout. Euh, ma bu ma année bi yëpp defuma projet. wala mm-hmm. deux ans. Uh-huh. je sais même bu dee benn nit dina toog ak man. Uh-huh. j'ai dit euh, à travers euh, Seydi Adja j'ai vu des gens qui m'ont vraiment aimé uh-huh. waxuma ñu la fande ñu la bëgg te yàlla moo tax surtout ay nit yu mel ni moomoo bu duudu kooku bu ma ko tuddul ko rew ma parce ma defee dara moom ni mu koy méttee man si boppam du ma méttee noonu mu àddu mu waxee benn affaire day day xaru billaahi wallaahi donc ces gens là ah, bu ma amee pression ñoom la aussi ma famille mhm. des fois je suis pas souvent la maison mhm. je suis pas souvent la et xam naa ne des fois danañ toog ne ñàkk nañ doom wala dara et man j'ai que vous mhm. képp ku ma ci mere wala nga jàppal ma dara maa ngi jégalu nekk ci waar bi fexe def dara rek parce que nit laa koo xam ne j'aime pas perdre j'aime pas man dama bëgg gagner dama bëgg ndam et daf may jaral lu nekk c'est ça bu dee liggéey rek mooy tax nit tekki mhm. man gëm naa ni war naa mën a tekki parce que ma liggéey laa xam mhm. xaw ma leneen mhm. boo may gis si caaxaan daf fekk ma dem liggéey ba pare daa dem ci caaxaan daa dem ci caaxaan laal caaxaan tuuti voilà donc di di wax sénégalais yi nañu xaar 2021 bi incha allah incha allahu rabbi bëgg nañ mu rafet nag mais yàlla moo xam lu ci luñ ciy def comme projet ak lu ñu si dul def comme projet comme nag yàlla ren dafa fël ñu si détail si corona yu ni muur uh-huh. deuxième vague. waaw xanaa dana fi am. dina fi jeex moom. waaw kon bañ a xaar on espère on ah, espère donc euh, yàlla na fi yàlla dindi lépp rek. bu ko defee ñu intégré ay production yu neex. surtout. bu dee liñ may wax yëpp. Hmm. war naa def ren. Hmm. gars yi dinañ bëgg de. Mm. ñu ñàkk koo def mooy problème bi ku ma ci woon ne la orange mën ma ko def moom. kon yéen li ngeen waxanteeg moom yëpp def leen ko. Ah, kay non gars yi liñ ma wax yëpp ne war naa ko def. waaw moo ko defee si sa di ma woo fii ba mm. parce que lu ma nee laay wax. kon ma ragal ma man lu ma nee la <laughs> kon wax na <laughs> mu ngi noonu kontaan naa bu baax dalaloon ko tey fii ci Seneweb number one ñuy lay remercier tey ci sa mm. jotaay sa teewaay. Mm. Eh, di nuyu sama papa Ahmed Diagne ñu ngi koy sant bu eh, baax. ak sama ak sama yaay Zeynab sama turandoo ñu ngi nuyu ñu ñu doon seetaan ñëpp internet yi nga xam ne eh, ñu ngi doon suivre li nga xam ne moom mooy interview bi di leen remercier di remercier équipe technique bi di leen jox rendez très bientôt ak beneen daara.